jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs euh, Médias dal na jàmm ci xibaaru euh, digg bëccëg bi ponk ya ca gën a fës ak lu préfet euh, Ndakaaru jàpp ñoom ñooñu nag di ñoo lànk ñoo bañ dañu fas yéene rek kon def la ñu wax muy tey yegg ba place de l'indépendance ngir amal seen nag toogaayu ñaxtu ni ñu koy jooytoo boobu bu ne muy courant bi nga xamante ne nag dañu ko yokku naam sax ñu ne ñoom seen wax nag dafa waroo ak wax bu préfet ndax leer na nañ ne yëglu nañu ni doxu ñaxtu bi dañu koy amal ñenn ci askanu euh, kon euh, Sénégal ak nanu ko jàngatee naam sax euh, bu ñu gis ni kon préfet na mu doxalee noonu la ñeneen ñoom dañu jàpp rek ni kii di ba dara sàmb nag warul woon tere benn yoon ñii askanu Sénégal ñenn ñi amal toogaayu ñaxtu ndax loole dañu gis rek ni kon charte réew mi dafa ko santaane askan wa yeewoo fa ñu naan Kouthia Kouromba imam ya di chef de village ya ba ci sax nag soxna ya ak ndaw ña ñoom nag daal dinañuy mer lool mobilisation di sàkku nag ñu dimbali leen ci wàllu courant ndax yàgg nañoo am jafe-jafe boobee ganuk tay ji euh, Saer Diop la muy directeur général euh, bu agence pour l'économie et la maitrise euh, de l'énergie moom la ñu fas yéene dalal tey jilee lee waxtaane ci wàllu courant bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Saer Diop. ma ngoog euh, beneen ponk ci biir euh, xibaar yi euh, Luc Nicolaï jamono ji may wax ak yéen nag ma nga ca ëttu attekaay ba nekk ca mbuux ci kanam tuuti mbaa sax jamono ji may wax ak yéen procureur ma ngi koy dalal moom moomee di Luc Nicolaï ci fàttali loolee nag soxaloon kon mbirum arrestation mu mel ni kon nag procureur daal dafa daal di kon parquet ba dafa daal di kon làbbaliwaat mandat d'arrêt boobu doon wax ni dañu koy tëj juróomi at dinañ fa jokkoo ak sunu ndaw Abdourahmane Diallo ma nga fa avocat yi koy layal tamit ña nga Euh, yemoo ko bëccëg bi ñu jagleel fàttaliku euh, Senghor tey la tey ak ëllëg ci ASER ji loolu nag ci njiitaluk euh, Aminata Mbengue njaay moom mi secretaire général bu parti socialiste bi kii di Léopold Sédar Senghor nag mu jaadu ñu delloo ko njukkal fàttaliku ko moom moom nga xamante ni mooy père fondateur bu parti bu socialiste daañu amal ay gerbe de fleur daal di koy teg ca bàmmeelam naka noonu it ay tomb yu am solo dinañ ko waxtaanee ëllëg ci ASER ji lee Anta Sarr Diako nag yëkkati na kàddu yu njëkk ko jëlee nag ca bopp euh, délégation général à la solidarité nationale moom moom mi ngi wax ni amul nag lenn loo xamante ne rëccu na ko euh, ci toogaayam boobu mu toogoon euh, ci kër googu nga xamante ne lépp nag ci leeraange la ko tegoon mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi jàmm ci euh, xibaaru digg bëccëg bi nuñ ko waxee woon nag ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag ak lu préfet bu ndakaaru mën a jàpp rek seen toogaay ñaxtu tey euh, daanu ko amal ca place de l'indépendance ndax yëglu woon nañu euh, te ba nëgg ni nag jàpp nañu ne ñu ngi ci seenu wareef mu mel ni kon tey li ñu gën a dogu ci fàttali xeex bi du lenn rek lu dul courant bi ñu yokk waaye Guy Marius Sagna ak i ñoñam yi ñu teg loxo ci wàllu woowee ñu teewlu Moubarak Wade moom co-coordonnateur la bu Alassane Ba. dëgg le préfet dañ ko ñaan ñaari mbir ñaanuñu dañ ko yëgal ñaari mbir ñun te gis nga ñaari place yooyu ñu ko wax suba na xalaat nag na pare ñu jox ko ay place yu bëri ci senegal ne ko dinañ fa taxaw ñaxtu ñetti nit ñoo dem déposé c'est normal parce que ñun ñëpp mu ñu dem déposé ji ñooñu dañ leen jox ñu suñu kàddu ne leen dem leen ngeen déposé pour ñun pour suñu maam yi suñu yaay yi dem ñaxtu place de l'Obélisque mais ñun tamit ñu dem place de l'Indépendance donc loolu na ci pare que suba dinañ ko def Pikine dinañ ko def feneen ak feneen donc moom son rôle mooy na xool sénégalais yi ñu doon ñun naka la ñu mën a aaree ñu wax si li nga xam ne metti nañu suñu Sénégal ñu am ci droit nag bu baax a baax pour def pour pour def ko deuxième chose ñun ñëwuñu fi pour foo di caaxaan du foo ñun dañoo déposer le lundi teel ko déposer ñoom ñu bàyyi ba dernier moment déposer ko te loolu du fi guléet yàgg nañ gis ay mouvement dañoo bëgg def daras ci jàmm ñoom ñu ñëw salfaañe ko te loolu yoon da ko da ko da ko da da ko dàq ku ñu ngi leen di woo yéen ñëpp nag ñëpp ñëw tey tey si on le ñu ngi koy dëggalaat ci kanamee incha allah dinañ dem julli ji ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee ko waaye dinañ dem place de l'indépendance salaamaaleykum. nangook muy dajaloo bi ñu namm amal fële ca place de l'indépendance ñenn ci askan wi euh, ni ñu ko jàngatee nag mooy jaadu na waaye am na ñoo xamante ni gisee nañu neneen ndax ne ñu préfet bu ndakaaru wala woon tere euh, benn yoon kon euh, lu mel ni kon genre rassemblement bi ndax dañu jàpp ni ñi ngi ci seenu àq nekk ci seenu yelleef ñu daal di teewlu ñenn ca ñoom ci micro Alassane Ba. électricité bi yokk ciment yi wax ak fer ak affaire yooyu noonu c'est normal que mu bàyyi nit ñi manifester. da on brave pas c'est juste comme manifestation suñu droit lañ nekk et tout d'accord nañu suñu droit lañ nekk mais tamit moom tamit bi nga koy yëgal c'est juste pour tàggu ko ak yëgal ko en même temps. ah encadré rek la war a def waaw encadré la war a def comme du moment que instant bi on dit que actuellement Dakar a été nu ñu koy waxee bunkerisé par tous les policiers et tout. man yaakaar naa effectif boobu noonu ñu fa teg pour bunkeriser ko moo nañ ko encadré gars yi def ko de 15 heures à 18 heures mu jeex ñu tas si jàmm comme la fois dernière ni ñu ko defee place de l'Obélisque. bu ko interdire tabaska am na lu tax gars yi war a liggéey te noppalu bàyyi coow li. mais courant bi la ñuy kaas. soo bëggee sa sa téléphone bëgg a taal sa frigidaire bëgg a taal sa climatiseur bëgg a te doo fay mun da nekk da gars yi liggéey. station droit constitution moo ñu ko jox. ba tey mais foo foo nga mën a euh, place de l'Indépendance. waaw pour lan. mais mun nañ ci manifester. nga jóge fa nga jóge fa dem léegi ci ci ci ci njiitu réew mi Macky ko indi ko coow. mu war a liggéey ñeneen ñi si. nañ nañ jaar nii dem manifester fii mais manifestation pacifique la ñu wax. waaye li pacifique. mooy dal nga toog sa kër wax ko. dañ ko encadré takk sama bu xonq la Ablaye Ablaye wa dooxoon rek mer taxaw ñoo xam ne kii dafa mer mu la laajee comme nii nga wax. o am nañu plein droit nag génn dox dox def dox euh, def doxu ñaxtu. ci jàmm ci jàmm xam nga wax lu ñu metti parce que tamit lu mu mënti xew tam moom mooy suñu président. lu mënti xew tamit lépp loo xam ne métt nañ sóoba jant bi so rek moom lañ ko war a moom lañ ko war a mën a wax mais bu ñu bëggee bu ñu bëggee xañ loolu tamit dana métti suñun trop dana métti suñun trop parce que tamit loolu te bu yàggee tamit day métti violence entre rek ma nga kaskan wi ak nañu ko jàngatee toogaay ñaxtu boobu ñenn ñi ne jaadu na ñi si des ni ah, jaaduwul Saer Diop may fàttali nga nekk directeur général bu agence pour l'économie euh, et euh, la maîtrise de l'énergie yow sa gis-gis bu njëkk ci euh, doxu ñaxtu bi collectif bi na ma amal muy yokkute courant gi ak ni ñu ko xamee yow noo ko jàngatee laata ñuy xuus dëgg-dëgg ci jafe-jafe courant bi. lu jaadu na ñi ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy suivre ñëpp. Mhm. di xamal ni mhm. doxu ñaxtu. dafa bokk ci en tout cas droit yi nga xamante ni citoyen am na ko te Sénégal nekk dëkk boo xamante ni dëkku démocratie la kon kenn mënta wax nii citoyen bu amee lu ko naqari amul droit dox doxu ñaxtu kenn nangul nañ leen ko waaye je pense que euh, ci état de droit lañ nekk lépp dañ ko war a encadrer moo tax euh, ku bëgg a dox sa doxu ñaxtu da nga war a demander sa autorisation autorité bi nga xamante ni tey moom mooy préfet moom moo ñu ëpp ay information ñoom ñooy euh, kiir askan bi parce que dafa am ñuy dox am ñu doxul ñoom ñooy xool ban instant lañ war a mën a dox ak fan lañ war a dox loolu aussi euh, droit ay ñaxtu sax ñoom la ñu wax ah dajaloo euh, def benn toogaay ñaxtu waaye du caagante ne sax dañuy euh, jógee ci tali dox beneen tali mais toog xam nga Sénégal na mhm. fi nga mën a toogee bari na fi nga mën a waxe bari na donc kon autorité bi muy préfet moom mooy xool fi nga xamante ni ak ci jamono ji nga xamante ni war nañ leen a autoriser te yaakaar naa ni mhm. Sénégal mooy dëkk boo xamante ni ajjuma bu nekk ñu nekk di marche nag marche am na ci ci àdduna yëpp mais du ajjuma bu nekk ñu bëgg a dëkk bi ndaxte boo xoolee aussi tamit marché bi dafa am citoyen yoo xamante ne nii dañoo war a liggéeyi te liggéey bi ci la ñuy jël li ñuy dundee lu ñuy fayee courant mhm. kon bu ñu bëggee weer wi ñu téye ci ñeenti ajjuma kenn du liggéey parce que man am na ñu ma amaloon rendez-vous tey dañ ko annulé dañoo yaakaaroon di Dakar kenn du mën a dem kenn du mën a dikk yàgg naa leen wax ni leen nag Sénégal dëkku droit la kenn mënu ko perturbé kon nit ñi ñi ngi leen di nangul seen àq ak yelleef boobu nga xamante ne war nañoo wax li leen naqare dox ko waaye nañu suivre aussi autorité bi que force reste à la loi. Mhm. ñu waxtaan ak préfet lu mu leen ci digal ñu def ko ndax ñun ñëpp ay citoyen lañ force de l'ordre yi aussi dañ fee nekk pour aar ñu aar suñuy bien aar suñu alal. voilà ñun ñëpp ay citoyen lañ courant bi euh, ñu yokk ko sa xam-xam màccit euh, ci wàllu euh, électricité courant jaadu na. jàpp naa ni àdduna ak ni muy doxee. Mhm. yokk ak wàññi. kenn mënu koo dindi ci àdduna démb rek maa ngi waxanteeg suñu benn naataango sénégalais bu nekk ci bitim réew waaye moom dafa jàpp ni yokk bi nga xamante ne day am ci àdduna fépp la am kon bu ñu yokkee euh, li nga xamante ni dama koy wax muy euh, pétrole nga xam ni kat moom la ñuy toggee courant di ci def leneen ak leneen buñ ko yokkee te daanaka ñun jàpp nañ ni Sénégal dëkk la bu am pétrole waaye génnagul ñun ba léegi dañ koy jëggaani dañ koy jëndi kon bu ñu yokkee li nga xamante ni moom ngay toggee palaat bi nga xam ne da ko war a yàq jaay ko normalement xel war na mën a nangu nag ni yokk boobu am na fu muy toll wax dëgg yàlla war nañ koo mën a supporter beneen bi moom mooy. Euh, nañu jàpp ni euh, Sénélec dafa nekk société boo xamante ni société nationale la. Mhm. te yaakaar naa ni du société boo xamante ni dafa am liberté di def lu ko neex dafa am régulation bu koy suivre di xool njëg gi muy euh, di ko di ko courant bi di dikkee ak bi mu koy jaayee di ci wax ak état bi mu xool nu mu ciy def. kon jàpp nañ ni loolu yëpp réguler nañ ko ba yokk bi nga xamante ni tey moom mooy 6 pour cent jëm 10 pour cent Senelec yokk ko ci njëgu courant bi euh, yaakaar naa ni xel war na ko nangu ndaxte état du Sénégal kat yokk bi nga xamante ni moom lañ waroon a def yëpp régulation bi ñu jox ko dafa continuer am loo xamante ni moo koy supporté na lu ñu mënta comprendre mooy dégg nañ fi euh, kilifa Senelec yi di wax dégg nañ fi nguurug Sénégal di wax euh, maanaam matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ak Senelec koppar yi nga xamante ne jagleel nañ ko ko ak liggéey bi nga xamante ne def na ko muy ay ñu doon xalaat ni euh, xëy na du at yu weesu waaye at yi ñu dëgmal benn jafe-jafe dootul am ci wàllu courant dem nañ sax ba sati ba taxaw ne war nañu mën a satisfaire sax monde rural bi nga xamante ni bari nañu yuuxu ni mënuñoo jote ci courant xëy na bu ñu toogee ba jamono ji ñu ne dañuy yokki tamit est-ce que loolu tamit ñun askan wi nuñ ko mën a jàngatee. Eh, ndax jéego yi Sénélec def. Mhm. ci wàllu courant état du Sénégal def ko ci wàllu courant yaakaar naa kenn mënu koo lam-lamee. Mhm. parce que olof dafay wax naan bala nga naan naam nekk fa ñun ñëpp dund nañ fi lu yàggul muy 2011 jëm 2012 ñëpp xam nañ ni des fois da daan xëy doo mën a am doo nelaw ndaxte ventilateur bi nga am ci ñi néew doole amuñu climatiseur doo ko mën a taal ah yooyu sonal la lampe sax doo ko am. Mhm. ah boobu yaakaar naa ku ñu waxoon ni ñu yokk sa facture doublé ko nga nangu. kon situation boobu dafa nekkoon lu gën a graaw. Senelec dafa investir ba xuy kamaj boog ji fay gee tàkk googu jóge fi. Mhm. menuisier bi nga xamante ne dafa yoroon euh, atelier am te ci courant lay liggéeyee am lu mu am lu mu yóbbul njabootam kooku bu gisul courant du mën a liggéey. bay wax naan yokk nañ ak yokk kon dañoo war a d'accord ni au moins Senelec def na ay efforts yu am importance ba tey Sénégal wax dëgg yàlla nit ñu doon xeebe ku fi ñëw doo mën a def dara ndax courant buy coupé te courant dama koy wax moom mooy deret ci yaram mënta ñàkk kon loolu au moins na ko sénégalais yi reconnaître leneen li ma bëgg a wax mooy euh, li nga xamante ni aujourd'hui tey xëy na nit war nañ koo mën a comprendre mooy ñun ñi nga xamante ne tey yàlla def na ñu jot ci courant boobu. Mhm. tey nekk ci ay dëkku réewu taax bay jot ci courant ba naan cher nag seeru war nañoo mën a xalaat aussi suñu mbokk yi nekk ci àll bi. ñu nekk ci àll bi waaw justement justement lan moo lan lan moo lan moo waral sax euh, yokkute bi parce que dafa ci ci gis-gis dafa brusque maanaam parce que doon nañ fi toog ne euh, jëm ñi ngi fas yéene jëm ci euh, wàññi courant bi loolu doon nañ ko fi wax ñu jékki-jékki ne dañ koy yokk maanaam ni mu ni mu ni mu gaawee noonu lan moo nekk ci biir dëgg-dëgg lan moo indi yokkute gi tey. lu ko justifié nekk moom mooy que ni da ngeen a war a xam ni état ay prévision la bu ñu waxee ni am nañ yéene courant bi wàcc am nañ yéene am courant bu doy boo xamante ni nii tey ñun dañuy doyal ba koy jaay ñeneen loolu war nañ ko mën a nangu. te mm-hmm. état du Sénégal commencé na cee liggéey le département de l' parce que yaakaar nañ ni gaz dina feeñ ci Sénégal tey boo xoolee am nañ un projet bu ñu tuddee gaz to power ñi ngi changé centrale yëpp di ko def centrale à jaaye kenn mais mhm. loolu suñu projet la jëm nañ ci mhm. des autoroutes la boo xamante ni ñu ngi liggéey ndaxte dañoo war a am gaz dañoo war a transformer suñu centrale yi nga xam ni centrale à gaz lay doon bu ko defee production bi ñuy am ci gaz boobu une bonne partie dañ koy utiliser di togg ah, courant baadu jaayal boobu ngeen ngeen ngeen di waajal nag parce que nee dañu ci seen bébét la fas yéene jaay courant ñu jékki-jékki yokk courant bi mbaa yokk bi li koy justifier wax naa la ko. Mhm. parce que aujourd'hui pétrole bi dafa yokk ci àdduna bi yëpp te yokk gi nga xamante moom moo am tey Sénégal kese bu ñu wëree àdduna ñi nga xamante ni dañuy informé wu xam nañ ni pétrole bu yokkoo ci àdduna lépp day yokku te yokk bi du pet du du du courant kese du courant kese lu bari yokk na kon lan moo tax ñu bëgg ko jël teg ko ci courant bi encore une fois ma ñëw ci li may waxaat damay wax nii. ñun ñi jot courant dañoo war a xalaat suñu mbokk yi nekk ci àll bi nga xamante nii ñoo ñoom ñoo am benn droit ci am courant ndaxte ku amul courant tey doo mën a évoluer mm-hmm. te dañoo jàpp ni tey Euh, organisation des nations unies dafa fixé ni accès universel à l' dafa war a am. Mhm. accès universel à l' boobu ñun ni ñu ko amee ñu nekk ci àll bi noonu lañ ko waree. Mhm. amee état du Sénégal le président Macky Sall ci en tout cas yéeneen bu rafet mu jàpp ni moom la fixé ni ñi nekk ci àll beeg ñi nekk tax mi yëpp. i ci ngeen fas yéene sukkandiku tamit. ci askan wi ngir mën a am gouverner c'est prévoir. liggéey ci lenn lu dul ay prévisions. moom laa askan wi ngeen fas yéene kon euh, maanaam tibbee pour mën a réaliser seen i seen seen seen li ngeen bëgg aussi. Euh, ci askan wi la ñuy tibbee parce que état ak askan kenn mënu koo dindi da ngeen di xam ni état c'est nous. yow la man a keneen état nekkul benn groupe d' individu boo xamante ne nii ñoom ñoo yor seen yëf di def. lu leen neex a 6 bariwul par rapport ak li nga xamante ni moom lañ waroon a def yokk bi tey waroon na mën a dem ba 26 pour cent. Ah. mais état moo continuer di. mbaa yéen a ngi xalaat nag maigre bourse yi tamit. mais maigre bourse yi effectivement ñoom boo xoolee ci tranche sociale bi lañ nekk ñoom yokk bi du leen laal. mais ñi ñu yokk bi laal mooy ñi nga xamante ne nii tey am nañ sañ-sañu utiliser ay climatiseur di ko taal. Ah, di di def lu leen neex ci courant te yàlla may na leen ko ñooñu dañ leen koy nangul mais nag dañoo war a jàpp ni état buy subventionné di jàppale ñi gën a néew doole la war a gën a jàppale ñi gën a néew doole mooy ñi nga xam tey dañoo nekk ci àll bi war a liggéey courant bi ba mu àgg ci ñoom te li ñuy mm-hmm. bi ñuy jox ñi nga xamante ñoo am doole loolu war nañ koo mën a jël yokk production bi yokk ligne yi ba mu àgg ci ñoom loolu pour leeral mooy ñi nga xamante ni est-ce que kon ñu maanaam ñiy fay facture yu mag yi euh, yéen ci loolu ngeen di sukkandiku wala boog dafa am investigation consommation bu ngeen di def. ba mooy ñi nga xamante ne dañoo dem ba dugg ci troisième tranche bi seen consommation yëpp ci troisième tranche bi la mooy ñi nga xamante ne vraiment. nekkatuñ euh, ay consommateurs yu ndaw. ay nit lañ yoo xamante ne nii en tout cas amuñu benn limitation parce que seen seeni doole may na leen ko ñooñu nag muy aussi ak entreprise yi parce que lan moo tax état bi war a continuer di subventionner benn entreprise boo xamante ne nii en tout cas euh, dafay. utiliser courant di liggéey liggéeyam di am ay bénéfice euh, kooku dañoo war a ñun mhm. ki nga xamante ni citoyen la te néew doole xam naa centrale solaire yi tamit euh, faw rek euh, ñu ñu wax ci yooyu yëpp centrale solaire laata ñu yegg si ci loolu muy ponk boobu nañu dem seeti rek askan wa yeewoo ca Kouthia Kouramba ay imam ya chef de village yi ba ci soxna yi nag ak ndaw ña ñoom ñoo boole joxante loxo di ñaxtu ñoom it ñu ne mënuñoo jote ci courant ci seen barab boobilee ci jamono ji nga xamante rawatina nag ñi ngi wax yokkuteb courant Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou ca diwaanu Tamba. Kurumba nekk benn dëkk boo xam ni digganteem ak Tambacounda tool na ci fukk ak juróom-ñaari kilomètre Kouthia Kurumba bokk ci commune bu Sinthiou Malem fare fii ci ginnaaw buutu ci yoon bi jëm Bakel ñoom nag nee na jot na ñu daal di leen defaral courant ci noonu nag ñu yuuxu wal ngir ñu indil leen ci ay saafara. village bi dem na ba am case de santé ci propre moyen village bi dem na ba jël engagement ni day école bi. village bi am na mosquée boppam karole yéen a ngi nii di ko gis village bi am na fi teen bi nga xam ne ni moto pomp ñoo ko jënd si seen ci seen propre moyen à une valeur de deux millions cent cinquante mille si lañ lancé appel à l'État auprès de son excellence monsieur Macky Sall pour mu xalaat ñu ci courant bi au niveau de de de de Kountchakourumba euh, yokk courant ak wàññi courant ñun suñu jàngat ci loolu mooy kenn yokkul courant pour ñun permettre ñi nga xam ne ne amaguñu courant ñoom tamit ñu am courant comme ñun ñëpp parce que ñun suñu analyse mooy lan nañu sénégalais yi jàppale et on a on lance un appel à cette opposition on lance un appel au sénégalais nee ni jarul xeex jalu xiiro ci euh, le ministre des forces armées maître Sidiki caba plaide ñu auprès de son excellence monsieur Macky Sall le président de la république pour ñun tamit ñu am électricité depuis 1938 ci autorité ci eeru Macky moom rek moo fi mus a teg tànkam. kii di Jibi Sakho doon wax ci turu chef de village bi Issa Sakho nee na jot na itam ñi nga xam ne ñoo toogal nguur daal leen tabaxal benn yoon boo xam ne bu ko defaree dana tax li nga xam ne moom la ñuy béy di koy góob fi nga xam ne moo fare ci Kouthia Kouroumba ak yeneen yëngu-yëngu yu jëm ci wàllu càmm fekk li nga xam ne demle bi ak dikk bi dafay gën a yomb. ma ngoog euh, gannaaw foofee ñu yeggit ba fële euh, Sine Saloum île du Sine Saloum ak ñeenti centrale euh, ci solaire yoo xamante ne nag kon daal di nañ koy daloo foofee mu toll nag ci ñeenti milliards ak lu toftal ñu daal di koy inauguré ci teewaayu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk pétrole ak énergie loolu nag ñu ne ab lëkkaloo la bu dox ci partenaire république allemande ak réewum Sénégal dañ ci ànd ak Aminata bi nga xam ne nag ñoom lañu baaxee ñeenti centrale solaire yu mucc ayib yooyu commune yu Dionewar la Bassoul Djirnda ak itam village bii di Bettenty féete ci commune bu Toubacouta ñi nga xam ne nag ñoom ñu dëkkee ci zone insulaire yooyu nag fi mu ne daañu am courant 24 ba fi mu ne nag demewul woon noonu. programme bi ñu def ci ñetti îles yi ba courant bi dootul daggati ngeen koy am bés bu jot suba ngoon bu dégg bëccëg. te yéen courant bi ngeen am bi su ma yaboo ni bari na dëkku taax yu ko amul su jant bi jógee jox leen su jant bi suuxee batterie yi jël su batterie yi daanoo machine yi jël donc yéen ala kulli xaal yàlla mën na def courant du ma a coupé ci île yi président de la république wax ci île yu wër nekk ci li ñu defaral nag askan yi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ci île du yi mu ngi bokk nag ci programme boo xam ni dañuy gën a fulaal li nga xam ni moo di énergie renouvelable ñu ni sax ay centrale hybride ak itam ay centrale solaire fi mu ne tabax nañ ko ci yeneen gox yu senegal programme bi bokk na ci itam ñetti centrale hybride solaire diesel yu ñu war a tabax ci Goudiri Kidira ak itam Médina Gounass dañu gën a doo bëgg dooleel énergie renouvelable yi loolu dafay laaj ñu gën a yokk tabax centrale photovoltaïque yi connecté leen ci réseau Sénélec bi programme ñu leen di xamal ni ci euh, 38 millions d'euros lañ ci dugal 34 millions yi nag république allemande ñoo ñu ko jox. ci commune bu Dionewar nag la ñu tànnee woon ngir defee fa cérémonie d'inauguration centrale yi nga xam ne moom la ñu tabax ci île du Saloum yi nit ñu bëri nag daje woon fa ba tax na mbir mi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aminata Goudiaby dellusiwaat ak suñu gan sa Diop eh, ni nga ko gisee léegi muy central solaire yi nga xamante ni ñu ngi koy daloo daanaka booy xool ci àll bi ci Sénégal mi ngi tàmbaree bari nag eh, yi moom yan jeexital la am ci ci ci ci ci courant bi. oui euh, en je pense que euh, ñun aussi euh, yàlla dafa am ñu lu mu ñu baaxee. Mm-hmm. muy jant jant boo xamante ni mën nañu jàpp ni ci at bi yëpp day am naaj. Euh, kon énergie solaire. Mhm. Euh, énergie renouvelable de manière générale muy solaire éolienne ak yeneen énergie ah lu ñu war a mën a exploiter la fii ci Afrique en tout cas ñi nga xamante ne moom ñooy ñi dëkkee ci yeneen dëkk lu mel ni Europe ak yooyu dañ ñuy ñee ci lu ñu am jant buy naaj ci at mi yëpp pratiquement kon énergie renouvelable boobu non seulement daf ñuy permettre. Mhm. ah suñu dépendance ci énergie fossile yi wàññeeku mais aussi daf ñuy permettre ñu gën a sàmm jaww ji muy environnement environnement bi leer fi mu ne nii ñëpp xam nañ ni énergie fossile bi daf koy agressé kon mm. énergie euh, renouvelable lu am solo la mais yaakaar naa loolu aussi état du Sénégal comprendre na bu ko yàgg te euh, bu yàgg te li mu opté mooy le mix énergétique c'est vrai que mënuñoo xëy rek arrêté énergie fossile yi dem ci énergie renouvelable à 100% mais mix mooy nga jël ci énergie renouvelable yi mais jël ci énergie si fossile yi en attendant ñuy continuer aussi di investir sur les énergies renouvelables ma nga ko loolu bu gën a bu gënee jëm ci kanam est-ce que mën na am jeexital euh, tamit euh, ci courant bi yokk ak yooyu parce que gis nañu ne àll bi daanaka booy xool mooy cible bi ute ak euh, zone urbaine yeeg yooyu est-ce que tey jii loolu bu demee ba nga xamante ne matale nañ ko mën na dem ba mu répercuté wu ci courant bi oui euh, effectivement parce que boo xoolee. ci àll bi jooy ak yooyu. ci àll bi ci mhm. àll bi en tout cas dëkk yi nga xamante ne nii tey xëy na réseau Sénélec bi eggu fa euh, le département de l'énergie à travers ses ses démembrements muy ASER ñi ngi ciy dugal ay ay ay ay ay systèmes yoo xamante ne système solaire la euh, yoo xamante ne dina permettre en tout cas nit ñi ñu am courant nañu jàpp nag ni courant boobu aussi du courant boo xamante ne dafa yomb lool. parce que énergie solaire aussi technologie bi ba léegi nii am na njëg loo xamante ne daf koy jar buñ ko comparé daanaka chose lay doon waaye li ñu ciy gagné mooy aussi source d'énergie la boo xamante ne nii dinañu permettre ñu préserver environnement bi kon état du Sénégal mi ngi dox ci yoon boobu mi ngi ciy investir à travers beaucoup de centrales solaires comme ni nga ko waxee mais aussi ci énergie éolienne bi aussi. panneau solaire moom yomb na nit ku ko bëgg am ko sa biir kër. Euh, panneau solaire euh, yomb na waaye loolu mooy danger bi. dama koy mhm. wax il faut mu nekk secteur boo xamante ni dañ ko war a encadrer. Mhm. dañ ko war a ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci loolu ñu leen xool leen loolu ñi ciy liggéey parce nag nañu reconnaître lenn ñu bari ci euh, askan bi di nga gis koo xamante ne day installé solaire. Mhm. après mu découragé ndaxte doxul ndax lan ka ko jaay jaay ko lu baax. nga mhm. ko installé installé lu ko lu baax. parce que nag solaire c' est technique ku nekk moom mooy du affaire boo xamante ne benn commercant la damay dem Chine gis fa ñuy jaay ay panneau ma jënd ko. waxtu bi xoj nañu très rapidement contour carte yi moom yaakaaroon ni ab mbukum am na ci ndax gaaw naa jeex de moom de boo dugalee rek balaa ngay ah, gestu mu jeex. <laughs> loolu doy waar

technologie LED pour taal suñuy làmp bu dee frigo yi ak euh, yu mel noonu il faut ñu utiliser euh, en tout cas les les les appareils qui sont pas du tout énergivores muy mm-hmm. la technologie A A plus et A plus plus ñu def ko ci suñu investissement bu ñu ko defee mën nañoo gis léegi ñu suñu facture courant mën naa wàññeeku ba xam nga koy jooy yokk 6 pour cent utiliser ay technologies yoo xamante ak ay comportement yoo xamante mën na wàññi sa facture ba 30 pour cent 40 pour cent dañ koy delloo ci askan bi ndaxte en tout cas projet bi muy nga xamante ne ni accès universel à l' la à l' te président de la république am ko en 2025 ñëpp dañ cee war a jàpp te bu ñuy marche nag ñu marche pour projet boobu li ëllëg daañu xam ndax askan wi dinañ ci gis seen bopp am déet ñu lay jaajëfal bu baax a baax Saer Diop nekk directeur général bu agence pour l'économie et la maîtrise euh, de l'énergie euh, xibaar yi ñu ko ci tënk son excellence euh, président Macky Sall nag tey ci ajuma ji dana daal di ko fii ci Ndakaaru ngir yegg ji fële ci juróom fukk ak juróom benn lu conférence ordinaire bu chef d'État ak gouvernement bu communauté économique État Afrique de l'Ouest muy CEDEAO fan ak benn euh, ci weeru euh, décembre ca Abuja ca euh, Nigéria mu war a ñibbisiwaat kon ñaar fukk nag ak benn ci weex wi ni ñu ko waxee woon ci ndoxte ndoxteelu xibaar yi Luc Nicolaï jamono ji may waxee ak yéen ma nga ca tribunal bu Mbour foofe nag mu war a janoo ak procureur ay avocat tamit ña nga foofe ca Mbour Abdourahmane Diallo la ñu fay fekk ji Abdourahmane maa ngi lay mangook euh, Abdourahmane ni ma ko waxee Luc Nicolaï euh, ndax mi ngi janoog procureur wala mi ngi waaj a janoog procureur. waxtu may wax ak yow moom ak avocat am ñu ngi ci euh, bureau nga xam ne moom mooy procureur bi Luc Nicolaï nag. ngi yegsi ci ay midi car quart sol benn sabadoor bu weex wàcc ci benn pick bu weex ànd ak xam ni dañu civilu tribunal bu grande instance bu Mbour euh, ci la daal di toog nag xaarandi avocat mi daal di yegg ci ñoom ñu daal di ñaari oto yu bokkul daal di wàcc sànq ni nag euh, dugg nañu ci biir euh, tàmbale nañu audition yi fi mu ñu ngi taxaw di xaarandi rek xam lan la mbir yi di mujjee ba xam dañuy koy del des wala boog dafay des fii ci Mbour ndax nag jébe bi mu doon am fekk tribunal de grande instance amuloon woon Euh, ci mujjantal ga la tribunal grande instance daal di am wóor li ni mel a tax ci di procureur Youssoufa Diallo daal di jël li nga xam ni moom mooy dossier bi fi mu ne nii nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indi mooy gendarme yu ko indi ñoomit ñu ngi ci biti toog di xam euh, nag bu génnee la ñuy xam dafay dellu cees wala boog Mbour ci lañ koy bàyyi. ma ngoog euh, Abdourahmane Diallo kon ñu bàyyi la rek euh, nga euh, kon gën ñu toppal xibaar boobee ci fàttali nag ak yéenekaay bi de l'Observateur ñi ngi ci biral nag ne parquet bi dafa daal di rek kon daal di fësal nag kon mandat d'arrêt bi da ko daal di kon dekkalaat mandat d'arrêt boobu aju ci promoteur boobu di Luc Nicolaï ci juróomi atu kaso yi ñu ne nag dañ ko koo rek waroon a tëcc ci mbirum kon Sinabar boobu nga xamante ne moom la ko doon toppee ca Lamente Beach dinañ bàyyi Abdourahmane Diallo. Euh, mu wéyee toppal ñu rek kon xibaar boobu ca euh, Mbour. ñu àddu ci leneen muy nag bëccëg bi nga xamante ne dana ko tëral tey la ak di ñaari bëccëg euh, jagleel ko rek fàttaliku Léopold Sédar Senghor nekk père bu parti socialiste Aminata Mbengue njaay mi secretaire général bu parti bi moo daal di nag taxawal lu ni mel ñu daat koy fas yéene delloo njukkal bu baax a baax moom président poète boobu ak liggéey bu am solo boo xamante ne nag def na ko gerbe de fleur nag daanu ko yóbbu ca euh, bàmmeelam ëllëg euh, ci aser ji nag euh, daanu amal tamit ay bëccëg yoo xamante ni dinañ ci def rek ay exposition waaye tamit ay tomb yu am solo daanu ko waxtaanee lu ci mel ni rek kon xalaatub Léopold Sédar Senghor waaye tamit jigéen place bi nga xamante ni am na ko ci xalaatub Léopold Sédar sengoor Anta Sarr Diacko nag yëkkati na ay kàddu gannaaw bi ñu ko jëlee ci boppu délégation générale à la solidarité nationale gulet nag muy wax ba loolu amee ba tey moom mu di Anta Sarr Diacko ne rëccuwul benn yoon juróomi at yi nga xamante ne def na ko eh, ci bopp délégation boobu ak yorin bi mu jàpp ne yorin bu sell la ñu teewlu ko ak Salif Sow. dañuy gërëm di sant ànd ak mbégte. bu rëy sax mbégte bu rëy rëy ndax xam nga ñun dañu ne ñun jigéen ñi ëpp nañ genn wàllu population Sénégal kon ñoo ëpp donc bu la tànnee yow. ah njëkk la tànn déjà tegoon la ko ministre de la femme tànnaat la ñëw jox la juróomi at béréb bu sell bu mag bi nga xamante ne dégg nga programme bi cent 300000 lu ëpp 300000 ménages nekk ci at bu jot 30 milliards ñu génn ci suñu budget teg ci euh, yeneen frais yi topp ci ren rek 31 milliards dugal nañ ko ci. cent 380 euh, millions yoo xamante ne pour bourse familiale kon ku la fa teg juróomi at nga di ko ko doxal di ko ko tegal ah vraiment amoo lu dul gërëm ko sant ko mbégte rek laa am ci loolu keneen kuy ñëw tamit mbégte laay am aussi pour ànd ak yow loo ci xamoon lu ma ci mënoon lu ma ci doon def tamit su ma ko mënee dugalin ma dugalaat ko ndax defaluma ko sama bopp population Sénégal laa koy defal. déedéet aw ma aw ma benn regret benn regret ndax liggéey boo ko defee ba mu sell set tegal ko président bi ndax bi may ànd ak moom dama ànd ak moom ak loyauté ak lépp lu ma koy tegal rek lu sell lay nekk lu baax lay doon pour que bu ëllëgee man duma ci am gàcce moom du ci am gàcce te looloo tax lépp lu ñu bind rek euh, këyit yaa nga fa mu ngi ca béréb ba ku fa ñëw xool ko tamit di nga gis ne lu sell moo fa nekk ak lu set loolu moo taxoon ma ne duma def lu dul yokk ko gërëm yokk ko sant Euh, gox ba ñu naan euh, Fass Cheikh Tidiane nekk ca diwaanu Kaolack askan na nee nañ sonn nañu euh, ci ndox yu bon yooyu nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel bis bu ne ñu ne sax boo moyul mën nañ caa jëlee ay jàngoro ñu ne nag dara tegu leen ko rek lu may ONAS tey li ñu gën a bëgg rek mooy ñu connecté leen rek ci réseau d'assainissement ba Ibrahima Diame Faligay ndoxu foos yu bari lool fees dal ci biir quartier Fass Cheikh Tidiane moo ne de melokaanu réseau d'assainissement bu LONASE moom moo leen ko yóbbee askan wi mënatul dund ak ndox yi lee génnandoo di koy ñaawlu. sonn lool tàyyi lool suñ gune yi biir yaa ngi daw man mënatuma julli ji daanu naa fi ñaari yoon ba ci ñett kële ci suma gannaaw daanu na fi ñaari yoon ba ñett te ajjuma naraguma julli ji ndax mënumaa xuus ci ndox bi julli ji. yéen nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye ndox mii de sonal nañu gannaaw yàlla ak yónnante baag baay. ndox mi fu muy mu ngay jógee ca. kii bala di bala di dikk. lii nag ñu ne biñ koy dund yàgg na te tiit nañ dool ci seen wérgu yaram. waaye sëñ bi li la waa ji wax Jaal apologan wax dara mënu koo dindi fii maire yi nga gis nii dañoo am jom ñëw taxaw nii de waaye kenn wéru ci ñoom ñii kenn wéru ci maire bi bi muy ñëw fii yéen seen yaram moo njëkk daw yéen ñi koy yéen ñi ñuy introsé yéen njëkk daw seen yaram njëkk daw. c'est pas normal ci mag mu mel nii xamuñ lu du jumaa ji lu jumaa ji man mi wax ak yow sama kër suñu kër a ngi ne néegi dëpp dafa am ndox sëñ bi muñ nañ ba sonn muñ nañ ba sonn nañ ñu dimbale ngeen la waaye nañ ñu dimbale. quartier bi nag di face Cheikh Tidiane li ñuy duppee ba fond la ay dégg la woon te amul benn réseau d'assainissement. fii ñun bokkuñ sax si li war a canal bi war a jaar fii dañ bokk bokkugul sax ñoom ñun bu ñu leen dégloo ci wax bañ fi ñëwee li ñu wax ak liñ tàllal pour war ñu ko kayit bi moo ne ñun bokkuñ fii bokkuñ sax lu war a am. ñun amaguñ canal mel nii ñun bu amee kanaal bis bu fi tuyau bi jaaree bis bu fi bënnee ñun ñëppay génn. boo weesoo nag quartier Fass Cheikh Tidiane quartier yi di Kanda Fodé Bayo Medina Mbaba Ndargu Ndaw ñooy quartier yi nga xamante ni fa la réseau d' assainissement bi gën a bon situation quartier fas Cheikh Tidiane nag mu ngi gën a aggravé ginnaaw bi waa quartier Kanda Fodé Bayo jëlee seen yu motukaay dox yi doon ngaan ci seen biir kër yi. ñi lorule nag ci liggéeyub euh, train express régional ñi ngay woteek wàllu euh, ca centre Jacques Chirac euh, Chirac bu Thiaroye li ko waral nag mooy ñu bari ca ñoom nag ba nëga ni jotuñu seen i ndàmpaay maanaam téeméer boo jël kon ñeent fukk ya xamatuñu fan la ñuy teg seen tànk waaye ñetti junni la ñu doon wax ni ñoo ca am ay jafe-jafe ñu ne tey jilee ñu jotub këyit buy wane ni tey am nañu terrain bu ñu dem matul sax junni Salif Sow Asmalik Diop seen xaalis ak seen suuf la ñuy wéy di laaj ñoom ñi nga xamante ni train express régional bee tax ñu jóge ci seeni kër ñu daaneel fa wala fa raay yi ci ab kuréel la ñu daje ñoom ñu ngi joxante woon dox daje ci centre Jacques Chirac mu ngi nekk ci diwaanu Thiaroye fu sorewul fenn gaar bu caaro yi mu nekk beneen ndaje boo xamante ni tamit lañ doon laaj ca yee weesu rek la ñuy wéy di laaj. toog nañ lu yàgg ba ñu waxee dañuy jox suñu suuf ak suñu kii ba léegi amul benn réaction te wax dëgg yàlla ñun ba ñuy lewee suñu moo door dañu ne indemnisation mixte et que boo dañuy jox xaalis jox ñu terrain mais on a euh, constaté que président ba mu waxee ay instruction joxe ka ne nañu gaaw defar terrain yi jox ko seen borom aux ayants droit ba léegi dara defaguñ ci dara amul évolution dañ ko war a jot parce que depuis ñu jox ñu camp Thiaroye bii jox ñu VDN ba fële VDN bi ñu ngi 708 camp Thiaroye ñu ngi 135 ci ay 3000 impacte donc loolu demaguñu fenn chiffre boobu des na lu bari. mën nañ ñetti junni doomu aadama yoo xamante ni war nañ leen dëkkal jox leen fu ñu dëkk site yi nga xamante ni moom la nguur gi tànn mu ngi nekk Lac Rose Malika ak camp Thiaroye yi li nga xamante ni nag. mooy suuf si ngir ñu jox leen ko yëf ya dafa yéex lool la ñu gis nee ñu nañ ko def fast track. parce que gis nañ traitement yi ñu traité euh, les gens ci nekk berte jox nañ leen ba yóbbu leen seen site de recasement ñu xam emplacement site de recasement yi alors que nous du TER ñu ñoo njëkk jàll conciliation bu yàgg ba léegi xamaguñu sax suñu site site yi fan la nekk au niveau de Malika. beneen bi mooy ni gis nañ ci Sénégal tamit ñu ngi jox ay magistrat ku nekk ñu koy jox ay suuf alors que dafa am ay suuf yi nga xam ni. état moo moo moo moo jugloo ñi ngi fa nekk état bi moo leen force jugleen foofu ci expropriation ñooñu ñoo war a doon priorité si Sénégal yi ñëpp ñu traité yeneen ñi nga xam ne tey jii ñi ngi ci defuñu dara peut-être administration la ñuy liggéey wala loolu mais nous tous nous sommes des citoyens ñooñu gën a ñu nekk citoyen ñun au moins am na lu bari ñu ngi koy doxal si suñuy euh, fu ñu dëkk mais pas yi nga xam ne dañu vulnérable ba pare amuñu dara la ñu am as néew ñu bëgg ko loolu kenn ñooñu sonn nañ ces gens là sonn nañ te ñu ngi en location. ñi TER bi tax a jógi ci seen i kër nee ñu dañuy soppe sax naka la ñuy xeexee nee ñu yeneen chantier yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi te tax ñu jóge ñoom ci seenu kër bu ci mel ne BRT du bus rapid transit ñoom ñooñee ñëpp léegi dañuy ànd doon benn groupe jàkkarloo nguur gi mburu mu jox leen lu mu leen ameel muy seen i koppar ak seeni suuf. ñu wax ci wàllug wér-gu-yaram ak ordre des médecins bu Sénégal ña ngay joxeñ baaraam nag ñoom waa ordre boobu euh, seenub euh, jëriñ ak li mu namm muy nag yeesalaat rek li nga xamante ni moom mooy instance ba loolu nag ñu ne amul benn waxtaan boo xamante ne nii lal nañ ko ci seenub biir dañu gis rek benn bataaxal daal bu koy wane ñu jaare ko euh, ci xarala yi ñu jaarale ko ci xarala yi loolu nag ñu ne bu ñu sañoon daal daanu ko waxtaanee ba noppi laata ñuy jël benn dogal ñaar fukki fan juróom euh, ci weeru jan fi ñoom waa ordre boobu nee nañ duñu ca yegg benn yoon dañu ci ànd ak Fatima Touré Modou communiqué bu nga xam ne nag dañ koo rek sànni ci réseaux sociaux yi ministre de la santé di xamale ni dinañ daal ci organiser li nga xam ni moo di élection renouvellement wu organe ordre des médecins nekk nag lu illégal waaye tamit scandale bu ñu sukkandikoo ci kàddu ordre des médecins ci boppam moom nag mu jàpp ni procédure bi nga xam ni rek ministère de la santé jël na ko doonul bi nga xam ni moo gën. décret bu mu yónni ba président de la république signé ko ñoo ñoo xam ne daf leen taw pour ñu organiser élection de l'ordre des médecins dañ koy organiser par moitié maanaam am na benn pàcc bi des ñeneen yi ñu changé. ministre non seulement dafay naa président la république di ko signaloo décret yoo xam ne jaarul yoon parce que loi bi nee na bu ordre sosoo ba pare. lépp loo xam ne dañ ko war a jël jëmale ko ci ordre dafa war a jaar ordre d'abord ñu joxe ci suñu xalaat ba pare. ñoom médecins yi sax am njàqare ni tey jii nii ñoom am nañu inquiétude bu baax lu jëm rek ci indépendance professionnelle jëm ci wàllu médecin yi. médecin dafa am indépendance maanaam lu muy loo xam ci xam-xamam moom lay utiliser pour faj njàngoor nit ñi. waaye kenn mënu waru ko joxe ndigal pour mu faj. loole nag moo waral ordre des médecins di ñaan ministre de la santé mu daati rek dakkal li nga xam ni mooy instrumentalisation wu yenn nit ngir rek daati déstabiliser li nga xam ni moo di fonctionnement wu seen structure. dañ koy xamal askan bi xamal ko njiitum réew mi xamal ko ñi jiite justice pour mu bàyyi di leen di utiliser. pour yoo xam ne pour combat yoo xam ne amul njëriñ. élection yi nag ñu jàppandikoo ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu dëgmal ci biir ministère de la santé waaye nag ci jamono ji témbee ñi nga xam ni nag ñooy ordre des médecins ñoom lu ñu wax leer na moo di ni ñoom dañu dem benn yoon ci élection yi lee fatimature yi ñu des ci wàllug wér-gu-yaram ak li ñu duppee couverture euh, maladie universelle ku bëgg faju ku ne euh, mën a faju te doomi euh, jafe-jafe yi sundur nag taxaw temm rek ngir gunge ay xale ak i soxna ñu mën a jote ci wàllug wér-gu-yaram ci kaw loolu sax mu am ab campagne de solidarité bu ñu fas yéene amal muy campagne boo xamante ne jàppal ma jàpp la moom artist boobu sax moom mooy parrain bi ñu soxal wàllu couverture sax fii ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël ñeent fukk ñeent képp ñoom ñoo ca jotee Abi Faye Mardien ñi bañ a sooxeeti fii ci Sénégal waaye itam ñu yore ko anam boo xamante jaar na yoon nguurug senegal la mu bëgg rek moo di yombal faj mi fiile lu toll ci million ci ay ndaw ak i jigéen ñoo ñooñee ñëpp jël nañ leen dugal leen ci couverture maladie universelle bi. te dañoo bëgg fii léegi 2021 maanaam fii léegi ñaari at ñu mën a jël boo jëlee ñeent Sénégalais ñetti mën a dem am lu ñuy fajoo. loolu nag maanaam effort la laaj te effort boobu dafa am ñoo xam dañ ci bokk muy surtout ndaw yi ak jigéen ñi. door nañ campagne de solidarité bi la ko sabab moo di ñu gën a yokk résultat ya ñu amoon ca at mi weesu tax na Youssou Ndour ne sóob na loxoom ngir loolee antu. mbir mi solidarité la loolu moo ci war a lañ ci war a gën a jàng. tey maa ngi taxaw fii di engagé wu au nom. de la Fondation Youssou Ndour a parrainé l'adhésion maa ngi pare parrainé li nga xamee ni que moom mooy CMU ba xale yi nga xame ni que yëpp ñu ngi nekk ci école bi Samba Diéry Diallo Fondation yu Ndour dina jël pour enrôler leen pour dugal leen ci. gannaaw ba mu janoog ndaw ñi noonee la doxee ndànk dem ca lekkool ba nga xam ne fa la jàngee Youssou Ndour ne mbég rek la am ba mu tegee tànk yi fii. sama yaram ndaw na trop. ndax fàttali na ma lu bare wan na ma it que samay wayjur comme wayjur yëpp li ñu njëkk xalaat mu yóbbu seen doom pour mu jàng yàlla nag mooy dogal destin waaye tey lu mën a xew ci man it fàttewuma benn yoon paay yi ma daan dox di dugg ci école bi nguur bu Sénégal ne faaw rek mu tëral aw pexe goo xamante ne des nay gën a mën a saytu waaye tamit gën a mën a leeral lii di couverture maladie universel bi li ngir moytandiku njuuj njaaj ga cay am jëwrin gi yee yàbbi ne taux de couverture bi mi ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël ñu koy jaajëfal bu baax a baax abib Faye ñu wax ci xibaaru euh, bitim réew yi ak fële ca Guinée ak taxawaayu njiitu réew ma di Alpha Condé mi wax nag ne kon ak coppite dana am rek ci charte réew ma président bu France di Emmanuel Macron mi ngi am rek ab nemmeeku ca Côte d'Ivoire dinañ wax it euh, ci ñàkk bi fekk ci jàngoroy ébola euh, fële ca États-Unis américain nag nangu nañu boobeeb ñàkk Aminata Mbaxe Sow ci xibaaru bitim réew yi Condé président bu Guinée daal dinay xamle ne am na accordu président bu assemblée nationale ak cour constitutionnelle ngir mu xoolaat euh, seen constitution bi mu andi ci ay coppite moom euh, ci projet boobule nee na buñ ko defee ba pare euh, dañ ko jagleel askan wi ñu càmbar xool li ci baax ak li ci baaxul waaye kay li ci ñuul mooy ci projet de constitution lee mu bëgg amal waxu ci benn yoon lu jëm ci wàllu ñetteelu mandat bi mu bëgg amal ci atum 2020 looloo waral front national de défense de la constitution di ab coalition de parti ak organisation société civile di woote ba léegi askan wi ñu wàcc ci mbedd mi su ko defee ñu xeex projet de nouvelle constitution boobule Alpha Condé bëgg leen proposé président bu France Emmanuel Macron ñu koy xaar ci Côte d'Ivoire ci ba sub tey jilee dina fa amal visite ñaari fan lu ko jëlee tey ba dimanche moom Emmanuel Macron muy dem foofee ca Côte d'Ivoire ci contexte boo xam mille vingt ñenn ñi jàpp ne France mbaadu dafa bëgg a dugalaat loxoom euh, ci élection yi la foofee ca Côte d'Ivoire vaccin bi ñuy woowee Merck euh, ñu koy euh, jëfandikoo ngir xeex virus Ebola administration américaine bu jëm ci wàllu wérgu yaram daal dina ci joxe xalaatam ñoom nag daal dinañu approuvé vaccin boobule mu ne mën nañ ko jëfandikoo ngir xeex lii di Ebola vaccin boobu nag ci fàttali ci atum jàpp expérimenté woon nañ ko ci yenn foyer yi nga xam ni épidémie Ebola boobule nekkoon na fa surtout ci wàllu fële ci RDC di République démocratique du Congo ñu jàpp ne Ebola jàgg na fa def ay jëya. Aminata euh, Mbaare Sow cant ak ngërëm ñeel na la xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf talaatay ndeer la ñu xamoon ci réew mi waaye bu ñu moytuwul danañu dégg ajjumay ndeer tey jii ci dëkk bi ubbi l'observateur plateforme ñoo lànk ñoo bañ doxub ñaxtu bi ñu bëggoon a woote tey jii ci place indépendance Alioune Badara Samb préfet bu Ndakaaru aaye na ko préfet bu Ndakaaru nee moo lànk ndax ku turbale ordre public bi lay bañ waaye yoonu askan yu bëgg mars jóge place obélisque dem ba ca télévision nationale ñoom jox nañu leen autorisation bu leen neexee dem mars 3 ndakaaru lànk na ko les écoles nañu ñoo ngi jëm ci ajuma ju a tàng na marche a weddi ndax seetlu nañu ne mu di ca place de l'indépendance di ci yoon yi jëm ca palais de la république takk dere ñoo nga fa dell démb ba léegi suur suwaa dëggal ko wax ñu ne takk der yi wër nañu ndomba centre bi lépp rek ngir bañ ko dajaloo ca place de l'indépendance El Hadji Cheikh ji commissaire bu bees bi jiite police centrale journal bi nee nañu bëggul dara bett ko ci mbir yi moo tax it caaxaane wu ko benn yoon lu mat 840 éléments rassemblé nañ leen ci police yi dëkk bi lañ leen jëlee yóbbu leen fa renfort yaa nga fa gendarme yu bibi ñoo nga fa waa urbaine ñoo nga fa renseignement généraux ñoo nga fa anki dina kay nañu ndakaaru mi ngi ci tension préfet bu ndakaaru interdire na manifester gi gaa yi bëggoon def tey ji ca place de l'indépendance autorisé bi ñu bëgg ca place obélisque bu nuppi di leen di tere ñu bañ koo def da nga gis ku bëgg a manifester ñu aaye ko ko Mignane Diouf mi coordonnateur plateforme ñoo lànk ñoo bañ ne waa enquête ñun li ñuy def duñu ko wax li ñu war a def tey jii ci suba Alioune Sané bu mouvement Y en a marre bokkit ci collectif ñoo lànk ñoo bañ wax na ko ci l'observateur nee na dinañu daje tey jii ci suba gi waxtaan ci suñu biir ba xam ban tànk la ñuy taxawee la si ne kay moom it xëy taxaw ci mbir mi wax ñu ci xëta mu njëkk ne sagara ngi xeeñ ci dëkk bi laatar bi bi kay àjjuma la joo xam ne lu nekk mën naa xew ci réew mi Souleymane Ndéné Ndiaye mi fi doon wax naan ku fitna nitu ay nit ku mën a taal am réew waa grand place nañu moom Souleymane Ndéné Ndiaye ku leen soof la Aliou bu yaana nañu ci biir l'observateur moom Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñi mel ne moom ñoo sànk Abdoulaye Wade ñun nag yoon wi ñu tegu ñoo nga ca te duñu nangu kenn duñu ci wàccee ci caaxaan caaxaan faaxee la séeréer wax promoteur bii di Luc Nicolaï dellu na kaso l'observateur nañu ñeenti at war a def démb lañu ko fekk ca këram ga moo ko dàpp ci weeru sulet 2019 ci la ñu ko lancé woon ab mandat d'arrêt muy dóor dàqe gaañ ba démb ci la koy soog a jàpp grand place nañu moom Luc Nicolaï ca kaso ba fa lay feetoo Noël les échos nañu ay du yam ci bopp borom combat Modou Lo Ama Baldé nar naa taq suuf ndax promoteur bi ko tëgg dem na kaso suur soi nañu combat bi dem na kaso ñu dem ci l'observateur fekki fa tojanga wu rëy wi waa banque islamique du Sénégal def footballeur bi di fa banque ba di sàcc xaalis ba ba jël ca compte ba lu jege fanweeri million bi ñu feeñee yéenekaay bi nañu kenn ca caissière li mu wax enquête yi mooy sama yaay moo feebaroon tax ma dem ci compte bu Mbaye Diagne te fa juróom-benn million ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant ñu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine boobu ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen